ana waa Néma 2 waa Château d'Eau nuyu naa leen waa Koboda ana ñu waa Jabir waa Farokono waa Kanjala waa Ziguinchor yëpp waa Ziguinchor yëpp nuyu naa leen nuyu naa leen jullee su ma santee yàlla ba pare julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ñaari waajur ak samay mbokk samay famille maa ngi gërëm son excellence le président de la république ndax lépp moom la gannaaw yàlla ndax moom la neex mu wóolu sama patron bi toog madame le ministre Assome Aminata Diatta nommé ko ministre de la République moom bi tamit si mbaaxam ak si kóllëreem mu xool ci 16 de sénégalais ne ah yow Ousmane de yaa doy bëgg naa la de cabinet lu ci sa xalaat ma ne ko ah soo ko defee dina ma neex dina sedd sama xol man ma kon des na ci kooku loo fay lu dul di dëkk ci ay santaane am ak di góorgóorlu ba xolom sedd ci moo tax ñu jàpp ni yoon la bis bu ñu gërëmee président Robert Sagna bi RSDT bu ñu gërëmee le député maire euh, Abdoulaye Baldé te mu yebal fii délégation moom itamit euh, ñu gërëm Doudou Ka te Assane Badji représenté ko mu dogu pour le Grand Sénégal ñu gërëm docteur Annette Seck te sama mag Badou Seck représenté ko fii dinañu Keseya Mbeng ak Danfa ñu ngërëm DG yi Driss Diallo waaye sages yi te député honorable député Vincent Mendy di wax fii seen taxawaay rafet na ñu leen di sant di leen gërëm di di remercier bu baax a baax Babacar Diall muy kenn si ñun di responsable politique ah di représenté di gërëm représentant Aliou Ndiaye te mu ne fii ah di représenté di gërëm sama cabinet bi fi nekk dañuy ñëw en masse sama conseil technique fi nekk suñu attaché de cabinet bi ak ñëpp ñu effectué euh, déplacement bi Dakar ñëw donc di wax rek ne mënuma leen ñëpp ci président bi ñeneen ñi ma jéggal waaye dafa jot ñu ànd booloo liggéey jàppale président de la république son excellence Macky Sall ndax le tey ko wax na ko waxaat ko président bàyyil benn yoon Casamance bàyyil benn yoon Ziguinchor lépp lu ko war ci développement Ziguinchor ak Casamance mu si taxaw ñun kay ñoo ko war a delloo jugal ñu taxaw ko ndax nit bu la nekkalee si naaj nga nekkal ko ci kër. waral ñu war a gën a góorgóorlu ñu muñalante ku nekk ak ni nga mel ñu jàpp ni kenn matul waaye ñu xool rek ni dañoo war a booloo ndax ñu ni daf ñu mën a yëkkati président ba fu mu bëgg a yegg ñu fexe ba politique yu fii teg population yi ñu wax ñëw ba ñu comprendre li président di def ndax ñu si bëri ñu ngi fi mu ngi teg ay jéego waaye xamuñu sax ni président mu ngi teg yi jéegoo ñu ngi koy dund xamuñu ko lu ñu war ñun en tant que leader politique mooy ñu gën a communiquer ak suñuy base di leen xamal CMU mu ngi xew di leen xamal bourse de sécurité familiale di leen xamal réalisation yi président di def ci fan yii yëpp bu ci yàggu rek mooy tournée économique mu def di wane liggéey bi muy def ci Sénégal waaye Sénégal dafa rëy munoo xëy xëy liggéey fépp benn yoon. da nga koy ndànk-ndànk rek ba bi ngay egg yeneen bërëb yi donc ñu koy sant moom président di ko gërëm di ko ñaanal wér gu yaram ak féex ak naataange ndax lu mu namm ci Sénégal bu ko defee comme nu nga ko bëggee Sénégal yëpp dina dina na ku nekk di nga nekk si jàmm ak salaam di wax rek ne madame la de dëkk la mu ngi Kër Massar waaye madame la ministre léegi mat na ñaari at mu ngi ci biir dëkk bi comme ni ko di ñuy témoigner fu ne mu dem fa lu ne mu def ko fa ay nit nekkal ko fi ay responsable politique nekkal ko fi président des femmes a ngi fi Awa Kambi coordonnateur Moustapha Kamba ñoo ngi fi ñoom ñoo ñu fi nekkal ñuy dox nekk ak population bi di jaxasoo ak ñoom di déglu seen i di leen jàppale si li ñu mën donc dafay jot ñu ni tamit ñu woo suñu collaborateur yu Benno Bokk Yaakaar suñu collaborateur yu grande mouvance présidentielle bi ñu won leen ni ñun ñu ngi ci liggéey bi suñu loxo ngi ci ndab li di leen wax ni tey rek la ñu gën a engagé wu pour jàppale président gën a engagé wu pour dooleel grande majorité présidentielle donc wax bi dafa guddi maa ngi jéggalu ñëpp bëggoon naa mu gën fee guddi waaye dama leen di ñaan ngeen ñaanal sama ministre ndax su amee ma am jàmm su nekkul ci leneen mu am ci moom xeex ba ñu àndal mu am wér am gudd fan wa salaam. merci.